sëriñ bi maa ngi am mbégte lool teew fii tey ci kokki ñu def fi visite bu am solo ma ci sant yàlla bu baax a baax a baax bi ma mayee ma gis liggéey bu rafet bi nga xam ni yéen a ngi koy defal suñu boroom waaye yéen a ngi koy defal aussi Sénégal defal ko njiitu réew mi donc may sant yàlla bu baax bi ma mayee ma ñëw fii tey ànd ak yéen visité kër gi gis liggéey bu rafet bi ngeen ciy def tey nag dañu ñëw fii ci Koki ci ndigalu président de la république son excellence Macky Sall moom bi nga xam ne nii bi mu nekkee ci bopp nguur gi ba léegi xam na ne te waxu ko rek waaye daf ko jëf que këru diine yi lu am solo ci suñu réew la donc ñu ñëw tey ci ndigalam pour gunge xale yi nga xam ne ñoo nekk fii ci daara ji ndax ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméeri ndaw fu ñu nekk di jàng bariwul ci école yoo xam ne nii ci biir Sénégal am nañ yoo xam ne yéen leen dëkkal di leen toppatoo di leen jox lekk di leen jàngal président de la république nag jàpp ne li muy wax équité sociale ak territoriale dafa war a laal ci lépp ndax loolu bi mu ko defee mi ngi ko jaarale ci plan bi nga xam ni tëgg na ko bu tuddee ko plan Sénégal émergent mu jàpp ne gannaaw koom-koom tabax nit dafa am solo te tabax nit mooy li ci jiitu mooy jàngal. xam naa nit ñetti téeméer ak ñaar fukki gone ci ñeenti junni ak juróom-ñaari téeméeri gone bariwul waaye tàmbali la rek suñu borom buñ ne ñu dimbale ba nga xam ni. li ci ëpp ci xale <clears throat> li ci ëpp ci xale yi fii mun nañ leen jox métier pour que bu ñu génnee comme ni mu ko waxee ñu mën a nekk ay citoyens yu bokk ci seen tabax seen réew. sëriñ bi président de la république yemul foofu ndax tey ni ma koy waxee souvent rek suñu buggee xaar ba tabax centre de formation parce que moom am na programme bu rëy mooy tabax ci département bu ne ci Sénégal centre de formation waaye mu ne am na ay rëq ay ruqaat yoo xam ne nii. jaadu na ñu am centre de formation bokkul ak centre de formation bi ñu wax ci département loolu moo tax kokki bokk ci loolu monsieur le maire wax na ko léegi fi mu nekk nii tàmbale nañ fi tabax centre de formation boo xam ne nii daanaka li koy tabax ci xaalis ëpp na ñetti téeméeri ñetti téeméeri million ak juróom-ñaar loolu nag suñ ko defee c'est pour que métier mi fii du nekkati rek dispositif temporaire yoo xam dañ ko indi defal ko mais pour que xale yi di mun a jàng ci daara ji di dem ci centre bi aussi di def formation professionnelle bu ñuy suñu borom dimbalee fekk fukki weer liggéey bi dina noppi nga xam ne xale yi ñu ci bëri ci ñoom bu ñu génnee ci daara ji wala xale yi dëkk ci dëkk bi mun a dem jàngi métier foofu. may ñaan rek di daaneel xale yi nga xam ni ñoom la tànn ci tàmbali njàng bi gis naa ne am nañ ci farlu bu baax a baax a baax seen jàngalekat yi ñu ma leen di félicité ñoom tamit nañ ko gungewaat xale yi. jàppale leen ba nga xam ni jàng bi dina am jeexital ci ñoom ba ñu mën a yor seen bopp ëllëg yor seen njaboot mais aussi contribuer ci tabax seen ci seen réew ci Sénégal. ci kàddu yooyu daal la bëggoon a lancer officiellement programme de formation bi nga xam ni jagleel nañ ko ndongo daara yi comme ni ñu ko président de la République son excellence Macky Sall waxee.